que ñun togon toogoon euh, namun namoon suñu euh, xarit yi ñu bokkaloon Tamba ñu créer ben groupe whatsapp ci ben loolu grup woon groupe boobu dem mag ba mag suñu mag yi dugg ci suñu jigéen yi dugg ci suñu yaay yi dugg ci ñu am mebet dajale nit ñooñu yëpp euh, taxawal benn kuréel bu tudd union pour le développement de Tamba pour que ñu indi ñu nit suñu taxawaay ci wàllu koom-koom ci wàllu jëmale Tamba kanam donc euh, Union pour le développement de Tamba UDT noonu la juddoo le 15 août bii passé groupe WhatsApp la woon ñu dem ba taxawal association ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu ngi Tamba ci boppam ak ñoo xam ne ñu ngi bitim réew euh, nekk ay doomu Tamba nekk ñu bëgg Tamba nekk sax ñoo xam ne dañoo jaaroon Tamba di fa liggéey wala di fa jàng waaye képp koo xam ne Euh, yëg nga Tamba ci sa xol euh, Tamba soxal la nga doon koo xam ne bëgg nga Tamba jëm kanam Tamba mel ni yeneen région yëpp ci biir Sénégal euh, ñu ngi lay woo ci biir association boobu. xam nga ku ne koom-koom ne d'abord xëy ndax xam nañ ne liggéey xale yi ak liggéeyu jigéen yi nekk na loo xam ne lu am solo la ci biir réew mi jàpp nañ ne association bi bu taxawee di te mu ngi ci tànk yooyu yu indi. comme comme ci walu aussi am ci aussi ñu environnement ci agriculture ci sport ci éducation ak développement économique de façon générale lan la association bi indi comme projet yo ci suñuy wala boog mu doon ay financement yo xamné ne yaakaar nañ ko ci coopération décentralisée waaye yaakaar nañ ko aussi ci partenaires techniques et financiers yu nek ci bir réew mi ñu mun ñëw jappalé association bi mu mëna indi momit taxawayam parce que ñun ñëpp képp ko ne ci bir association am la la Tamba jox ñun fa lañ jàngee fa lañ ñu yaré donc bu ñu tolloo tey war a mën a indi ñu nit delloo njukkal Tamba war nañ ci xar suñu tànk tubéy loolu moo tax ñoom ñu nekk extérieur ànd ak ñun ak ñun ñu nekk Sénégal ak suñu mag ak rakk toog Tamba ñu ñëpp ñu jàpp ne bu ñu boolee suñu doole dinañ mën a dimbale état bi dinañ mën a dimbale collectivité locale yi pour que Tamba aussi mën a bokk ci réew eh, ci dëkk yi ñi cité ci Sénégal. bu ñu demee ba ci ba gis ne quinze août ak léegi ñeenti weer am nañ lu ëpp ñeenti téeméer nit yu dugg ci biir association ñu ne rek jot na nag ñu dem jëbbal mbir mi waa Tamba donc loolu moo waral ay bés boobu semaine 24 ba 31 ñëw ci biir dëkk bi waxtaan nag ñi nga xam ne ñoom ñoo am domba tànk ci biir dëkk muy wàllu administration préfet sous préfet gouverneur yi muy wàllu collectivité locale yi muy maire yi mais aussi muy wàllu kilifa diine kilifa aada yi ñëw jébbal leen mbir mi jébbal leen suñu suñu mbébét ñaan leen ñu jàppale ñu ci ñaan leen ñu bokk ci loolu mooy euh, programme bu semaine bi dañ def ay visite de courtoisie waaye taxawal nañu aussi benn siège euh, mooy siège UDT ci quartier Liberté Tamba donc dañ bëgg a profité ci semaine bi tamit def ubbite siège boobu ndax ñi équipe bu nekk Tamba mën a am bërëbu liggéey kaay boo xam ne projet yi ñuy taxawal ak réunion yi ñuy def ak lépp loo xam ne nit soxla na ko ci information ci association mën nga dem foofu donc siège bi ci lañ koy inauguré te fas nañ yéene aussi en dehors de l'inauguration siège bi def benn conférence de presse boo xam ne dinañ waxtaan ak euh, tasxat xabaar yi pour que ñëpp mën a xam lan mooy doon suñu taxawaay ndax du lu be lu bees dañ bëgg bokk rek ci ñiy indi as tuut boole ko ñi nga xam ne ñu ngi ci déjà te ñu ngi leen ciy delloo njëkkal parce que am na association yu bëri am na ONG yu bëri Tamba yoo xam ne vraiment ñu ngi def li ñu man état aussi mu ngi def lu mu man waaye réew mi moo métti fu ne donc lépp war ñu koo bàyyi ci loxo état képp koo xam ne doomu réew mi war nga mën a indi sa lu tuuti te lu kenn mën ñaara ko ko dàq te mbooloo muy doole. développement wu réew. Euh, dafa tollu ci fo xamné ne du doon mënul nek mbiru politicien kessé mënul nek mbiru état kessé mënul nek mbiru collectivité locale kessé parce que gis nañ ne euh, mouvement euh, citoyen dafa nek fep ci aduna bi mouvement bu am doole bo xamné lepp li nga xamné waa dëkk bi ñoo ko taxawal seen bopp mën nañ ci am lu bëri loo xam ne dina ñëw dolleeku ci lu eh, eh, li état jot a def lu politiciens yi jot a def dañ dañ jàpp rek ne réew mi buñ doon buñ doon xaajale buñ doon buñ doon partager ressources yu ñu am xëy na bu état sañoon dëkk bu nekk di nga mën a bokk ci ci priorité bi waaye boo xoolee àdduna bi ci boppam moo nekk ci crise euh, donc doole bu état war a mën a am ci dëkk bu ne dina xaw a des Et ce qui est important, c'est que nous avons une force. C'est force qui est très importante. Dans ce temps il y a 15 000, 20 000 ressortissants à travers l'étranger moy force diaspora bob Tamba ci bir Sénégal bi ci bopam les ressortissants de Tamba yu nek dans les sphères de l'État ak ñu nek ci association yi ci bir Sénégal rek ay milliers lañ leen di compter donc ñooñu ku ne nga ki dellu Tamba di indi as donc bu ñepp booloo lolu dina nek un plus ci l'état di def donc ñun lu ñu du ne dañu laaj la mais dañu japp ne amna peut-être ben moyen bu bess bo xam du donne ñuy tàllal suñu loxo état toujours mais ñu waxtaan suñu biir ñun doomu Tamba yi ne ah nañ ñëw jàpp ci te loolu euh, bëgg nañ aussi mu doon loo xam ne apolitique lay doon amul benn tendance aussi amul benn euh, amul fenn foo xam ne ñu ngi ko cee weer ci wàllu diine wala ci aada ne lii la bokk te bokkul jëmaluñu ko aussi ci benn xeet ne bambara yi la wala soos ñëpp ci bokk